il reçoit les ambassadeurs wax na ci sax nee na moom sax du seen nawle war leen woon recevoir yow vous êtes diplomate euh, tey jii nii am ñu jàpp ne mission boobu noonu président moom moo ko moom yow ban ban ban kii nga ciy def non damay dëggal li nga xam ne moom la premier ministre wax pas parce que je fais partie de son parti mais parce que loolu mooy dëgg je hmm. parle du pro c'est le professionnel qui parle dans tous les pays du monde hmm. un ambassadeur ne peut être reçu qu'une par le ministre des affaires étrangères mooy buy buy koy président di gis mooy bu muy présenter ses lettres de créance ouais. mais bu weesoo loolu c'est extrêmement rare qu'un ambassadeur soit reçu par le président de la République loolu Sénégal rek am parce que tubaab yi dañu imposer benn euh, euh, euh, benn égalité boo xam ne nii c'est pas c'est pas une égalité mm-hmm. euh, en tout cas c'est un en fait c'est pas un parallélisme ouais, de exactement. forme un ambassadeur ne peut pas rencontrer le président de la République man def na par exemple cinq cinq ans en Italie mm eu le la, la possibilité de rentrer dans le bureau du premier ministre italien euh, du, président italien euh, le président Mattarella qu'une seule fois avec l'ambassadeur bu muy mhm. présenter ses lettres de créance te je sais que ba mu fay jógee xalaatatul un seul instant rencontré waat ko mhm. pour rencontrer même le ministre des affaires étrangères moom ko mhm. dina fa def na fa li mu fa def ba ñibbi si da rencontré wu ko tu peux à la limite rencontrer le vice ministre des affaires étrangères ou bien le directeur Afrique c'est ça qui se passe dans les bëgg a dem loolu c'est yoo xam ne dañu nourrir benn complexe mhm. ñoom ñoo ko doon accepté léegi quand il parle des relations du Sénégal ak yeneen tamit outrepassé wul ses prérogatives quand il parle maanaam bu ñëwee ci relation France Sénégal par exemple di ci mhm. wax di ñaawlu euh, un peu taxawaayu Macron ci événement yi passé yu mel noonu aussi est-ce que moom moom la war non mais daf ko war parce que par exemple jëwriñ yi nga xamante ni moom lañ dénk affaires étrangères il travaille directement il rencontre directement à monsieur le premier ministre mm-hmm. mooy le ministre des affaires étrangères madame son excellence madame Yacine Fall mm-hmm. lu muy def dabay d'abord daf ciy waxtaan ak président euh, euh, Ousmane Sonko premier ministre Ousmane Euh, de mon point de vue des questions yoo nga xamante ni Ousmane Sonko am na droit wax ci compte aussi ci taxawaayam ci politique ak ci inspiration bi nga xam ne moom moo inspiré le projet du PASTEF. Mm-hmm. ça n'a rien à voir avec euh, prendre le, la place du président de la République le président de la République et le premier ministre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye kenn munu leen texale